boo ñëwaat ñu ngi lay nuyu. bëgg nañ la bu baax a baax. wala bëggee maa ngi leen di ziar di leen sama teewaay kay yoo xam gën a xam da may laaj rek. <laughs> wax na rek ñeneen <laughs> maa ngi bëgg dama ñëw fii pour paraphé sama contrat bu ma sekk ak Thialis di sama combat Tapha Tine waay. mais sa combat déggoon naa ne xawoon nañu xawoon na jafe tuuti si xam nga combat moom du jafe waxtaan la ba déggoo rek mais Pape Thialis yombal na ko xam nga gars yi moom am na loo xamante ni staff bee koy demandé après teg na ko seen loxo rek amul benn problème léegi wàccaay des. gis euh, na contrat bu mu mu sekk ak mbër yëpp Pape Thialis en tant que promoteur dëgguñu engagé ñu ñu war ko bëreet comme ni mu ko defee Tapha Tine ni mu ko defee keneen ak keneen. lan nga wax sa adversaire mu dal jàmm bu jeex jeex Bassirou Ba président des ménagers ni lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall. la moo si teewaay tey fii si lëkkaloo Leewtoo TV. ah lii kay ku ne xam na ne li ñu fi teewloo mooy combat wu Tapha ak euh, Boy Niang moom moo ñu fi teewloo. jërëjëf ko représenté. Jalis moo woote fi man ma présenté ñëpp. ñëpp ñëpp la présenté promoteur menacé man maa présenté ñëpp. Ah, nan nga gisee combat bi sama teewaay làmb la ah. nan nga gisee combat Boy ak ki nga xam ne moom. war a neex rek. combat bu neex la combat bu neex la dañu war a bëree amul ci kenn koo xam ne si daanu am na lu mu lay lu muy wàññi ceew yow daan dana yokk ci yow mais amul ci kenn ku daanu daanu di wàññi ci dara. da nga gisee retouru Thialis mu toog ñaari at ak genn wàll tëggoon fi làmb ñëwaat toog ñaari at ak genn wàll tëggul. bu doon mbër damay wax dafa defara ji woon euh, ñëw na nag kon comme dafa defara ji woon ñëw na yaakaar naa nun ñëpp danañ ci gis suñu bopp. Teki dan wanya nanoi. Baba kerja gaya yang gilwa murhadi awa muri melfole. Teki dan wanya nanoi. Baba kerja gaya yang gilwa murhadi awa muri melfole. Teki dan wanya nanoi. Baba kerja gaya yang gilwa murhadi awa muri melfole. Teki dan wanya nanoi. boo ñaa da am na problème tafaate ñu ngi lay nuyu ajëm ah, day maa ngi lay fay ça va yaa ci jàmm maa ngi ci jàmm nga xam sa teewaay fii tey nga xam sa teewaay waaw rek incha allah rabbi gis nañ sa combat wutal la adversaire métti woon na trop la moo war a euh, Tapha Tine wutal ko adversaire mu métti waaw mais lépp lépp sant yàlla la quoi waaw du mën a dañ ma ragal duñ mën a du dara làmb la woon xam nga hmm, kenn ku ne yaay taamu ki ngay bëreet looloo xew ci làmb ji yàlla may na ma combat maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di sant staff bi ma doon xelal yëpp nag ñu ànd seeg dal ak réglé ak tey alhamdulilahi rabbil alamin toog ñaari saison bëreewoo si ténor est-ce que méttiwul waaw mais sant yàlla la quoi xam nga àdduna yàlla mooy dogal dañ koy nangu ak lu mën a am yàlla mooy dogal heure bii la yàlla dogal nañu ci laay am ak combat maa ngi koy sant yàlla bu baax di sant képp ku doon ñaanal naan tafaatin yàlla na nga am combat yàlla may na ma combat maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà. gis naa sa combat mujj Leewtoo moo ko tëggoon bi tamit Leewtoo moo koy waaw en même temps Pape Thialis di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di xam ne xam nga jàmbaar la aussi guerrier la ñu ngi koy ñaanal xam nga mu gën a jëm ci kanam quoi moo tegoon sama combat passé contre Yékini Senior bu ko yàlla dimbalee mu tegaat sama combat alhamdulilah. merci beaucoup. Thank you.